professeur Meissa Babou euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa mhm. ngay enseignant à l'université euh, Cheikh Anta Diop de Dakar di économiste également tey jii ñu bëggoon a xam gannaaw nag sommet bi am euh, bitim réew muy Paris ci li jëm ci koom-koom Afrique waaye ak naka la ñuy def ba jogaat ci mbas mi tey jii nan nga analyser boobu les sommets déjà. tey dafa xam ne aussi mhm. euh, ay ñoñom ñi nekk benn Sénégal ak ci Côte d'Ivoire ñooñu ma fukki fukki réew ak juróom xam loolu sax taxu ko bëri mhm. ndax Afrique juróom juróom fukki pays ak ñett la euh, kon fukki pays réew ak juróom yi mu woo mhm. xam na ne ñooñu xëy na ba léegi mooy seen chef te gis nga Chine di daw di ñëw Russie mi ngi mi ngi dugg bu baax xëy na mu ne nag samay gax euh, def dara daal Mm-hmm. ci coono bi ñu nekkee mu daal di woote réunion boo xam ne ni ah, xëy na euh, réunion bu am na njëriñ gaa parce que waxtaan moom foog fekk dana am njëriñ mm-hmm. mais euh, xëy na la am tey man moom en tant que France ndax du Union européenne France la mm-hmm. xëy na lam tey man en tant que réew euh, jëm ci sunu réew yi du du waaw wante nag mën nañ rafetlu daje boo xam ne nii xëy waxtaan ba mën na mën na mën na am njëriñ d'accord si jàngat yow jàpp nga ne gannaaw nag bi lépp sommet dina am ay tontu jëm ci koom-koom gi waaye euh, jëm ci li nga xam ne mooy ndimbal gi euh, gi tax Afrique euh, jógaat ak ci wàllum koom-koom ci pandémie bi. waaw xam nga Covid bi moom feebar bi moom wax dëgg yàlla gaañ nañu xëy na ci affaire feebar bi ci mm. boppam moom ak bëriwut. Mm-hmm. ko waaw soo xoolee Europe lañ daj ñun kaar bi sax daju ko mm-hmm. kon foofu dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax mais xam nga ñun dañoo xaw a ne sax bi mooy dañoo xaw a dépendre trop ci biti mm-hmm. su feebare eh, il faut ñun ñu socc euh, te loolu xëy na moo tax euh, suñu koom bi xaw a nërmelu tuuti eh, ba nga xam ne perte d'employé ak euh, liggéey yëkkati koom bi nga xam ne yëkkati bi dafa laaj financement maanaam dimbal yoo xam ne ni forcément forcément gouvernement da ko war a jël mm-hmm. jëmale ko ci wala moom ci boppam ay chantier mag yu mel noonu yooyu nag na sax ndax amuñu doole doole doole xaalis xam nga euh, su doon ne France la Europe ci bopp ñoom la ñu xam ne lu ñuy wax dañoo am lu ñuy wax planche à billets maanaam seen xaalisu bopp la ñu yore tey suñu soxla woon junni milliards mën nañu ko tëggal seen bopp mm-hmm. ñun nag euh, loolu amuñu ko ñun mënuñu tëggal suñu bopp. ci note kon bu mujj bi mu fësal muy FMI jëm ci wàllum conjoncture moo ngi doon wax ne Afrique euh, atum deux mille vingt et li nga xam ne mooy koom-koomam dina yéex a jogaat euh, bu ko méngaleeg tamit yeneen dëkk. yi nga xam ne ñoo fi nekk ndaxte tey jii sommet bi warul gën a liggéey ci li nga xam ne mooy croissance durable ak it ñu basé ko ci ñàkkum leb. durable boobu moom Afrique amoon na ko. Mm. Oh, fukki at a ngi nii yoo xam ne nii Afrique mën nañ ne euh, mo ëppoon à part Asie. Mm-hmm. lu mel ne ay Chine ak yooyu. Mm-hmm. ñooñu ñoo ñu xawoon raw tuuti mais Afrique euh, tane woon na. Mm-hmm. Euh, xam nga Sénégal dem na sax ba bañ naan six pour cent jàpp sept pour cent. kon kon am na solo Côte d'Ivoire demoon na ba ci ay neuf pour cent. amoon na solo mais ndëgg sërëx bi. dañoo dépendre ci ci Europe maanaam Europe mooy saxaar bopp saxaar gi. Mhm. ñun wagon lañu. te du rek Europe sax àddina bi lay wax. maanaam ñoom suñ doxalee ñun ñu xaw a euh, dox tuuti. Mhm. waaw ñoom suñ dawee ñun mën nañ waaxu. léegi euh, li ci ngaañ-ngaañ bi mooy usines yi ñoo taxaw usine àddina bi ñoo liggéeyu tutoon lu bari ku daan liggéey euh, benn di liggéey kaar ba mhm. loolu moo nasax te loolu ñun ñun ñuy feebaree mooy ñun ñoo leen di jaay euh, la ñuy liggéeyee maanaam pétrole bi ñun ñoo koy jaay euh, or diamant fer bi yëpp mhm. ñun ñoo koy génn ci suñu suuf jaay leen ko pour ñoom ñu liggéey ñoom nag suñu liggéeyul ñun duñ jaay mhm. tey ñu moo ñu yóbbee yóbbee koom yu bëri bëri bëri dañoo taxaw bañ dugg ci li ñuy wax récession maanaam koom bu daanu. Mhm. loolu nag euh, faaw ñu waxtaan am pour ñu jëm ko yëkkatiwaat. Mhm. te yëkkati ba euh, la muy laaj loola moom moo xaw a moo metti ndax comme que ñun ñu doon jaay jaratul. Mhm. Euh, dañuy soxla kon ku ñu lebal. te sooy xool réew yi fa nekk yëpp dañoo lebal lebal leb ba moo tax tàllal loxo naan baal leen ñu baal leen ñu te bor ba moomuñu ko France moomu ko. ku ko moom kon France mënu ko mënu non non France moomu bor yëpp ba koy baale kon réunion ba man mooy di rek léegi ba banque mondiale euh, FMI plutôt intervenir nee na ñi ngi jéem xool ñoom nu ñuy def pour pour pour lebale xëy na ñoom mën nañu lebale ndax FMI na leb boog hmm. la ñuy wax droit de tirage spéciaux dafa am ay koppar yoo xam ne nii mën nañ ko jox réew mu nekk ci ñun ndax euh, réew yi ñooy actionnaire yi hmm. ci banque boobu FMI soo nekkee actionnaire na banque boobu nga bokk muy FMI sañ na jël ci koppare jox la yoo xam ne sax du am intérêt wala dañ la koy bañ mm-hmm. foofu tamit ay modèle de financement ñëw ko ci waxtaane mais daal li ma mën a wax mooy du yomb ñun euh, réunion bu mel nii nga def ñu la fay jox xaalis wala ñu la ko fay dig yooyu moom ragal naa daal waxtaan ba xëy na mën naa neex waa la muy jur lu bari kon tey ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee muy président français bi ak ñeneen ni acteurs yi nga xam ne ñooy plaider pour euh, bi lépp bor ñu effacer ko jarul euh, ñu koy continuer ndax du ci daal. non non non xam nga <laughs> France ci boppam. France euh, bor yi soo koy dégg. bu mm-hmm. mel ni Sénégal ak ba yeneen réew yu pem. Mm-hmm. bor yooyu du du réew. Mm-hmm. maanaam du du gouvernement moo ñëw lebal benn gouvernement déedéet ay entreprise koy liggéey. kii ne la mën naa defar tali kii ne la mën naa defar stade mais entreprise yooyu ay banque ñoo leen financé privé na waaw banque ba tamit xam nga banque privé la mhm. euh, du banque France du banque Chine du banque États-Unis du banque kenn mhm. ay nit ñoo defar seen banque yor seen xaaj di ko leble ñooñu nag suñu la leblee nga defar tali wala nga defar ba taxawee na baleen ma bor kan moo la koy baal kon xam nga foofu dafay sooxee ay xool Soudan bii Soudan la lañ lañ may démb ay bor France ko may lam moom Euh, maanaam euh, su doon juróom fukk juróom yi la la la France maye. Mhm. mu des fa ñaata ñeent fukk ak juróom ci ay bor kon kay xam nga ne France amul doole maye euh, kon foofu dafa jàpp naa ne loolu moom du solution. Mhm. solution xëy na te banque. Mhm. te banque mondiale man ko mooy xëy na banque mondiale moom am na xaalis boo xam ne mën na ko ubbi joxe ko. ba nga xam ne bor bi sax mën na la koo defal fii ak fanweeri at wala ñeent fukki at loolu moom banque mondiale mën na loolu rek moo foon mën a nekk loo xam ne ni xëy na solution buy euh, am. waaw gis nañ ne adduna bi yëpp euh, crise bi laal na leen maanaam économie yëpp a sooxe tey jii ndax Afrique warul mën a profito ci occasion bi pour amal boppam modèle gi nga xam ne moo ko moom. waaw jàng liñ jàng de suñ ko mokkalee eh, leer na leer na mooy euh, feebar bi wane na rëq-rëq yi. damm damm yi. waaw foofu nag lañ waroon a kon nag góorgóorlu. def changer changer complètement sunu façon façon yi nga xam ne ñun sunu état yi dañ koy dañ koy poli politique daal ma mi doxe mi mhm. ñuy doxee mooy jël alal defoo ko fa nga ko def euh, di ko def ci yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, lam lay jurali xëy na su baaxee tamit ndax am nga pont su baaxee tamit euh, la lay sonal dëgg dëgg nekkuloo ca mhm. mooy modelu di jënd lekk ci biti loolu dafa war a arrêté bëri na lu ñuy jënd ci biti di ko am ñoo ñoo na sax ñun ñoo euh, produirul fii ci réew mi dañ ko war a produire ana ana dem ba France ak Belgique dafa jënd chocolat ana dem ba France wala dem ba Maroc gee dafa jënd dafa jënd soble pomme de koy foofu lañ investirul dañu war a investir ci loo xam ne daf ñuy protéger mhm. nga xam ne sunu sécurité sax alimentaire daf ciy dépendre mais modèle yooyu nag il faut que gouvernement yi góorgóorlu pour euh, ci xaar ndimbalu biti réew da ngay nax sa bopp parce que biti réew loolu moo ko arrangé mhm. moom mu ñuy jaay moo ko arrangé que ñun ñu defal suñu bopp kon ñu ñoo am war a am fulla yi changé complètement mhm. suñu doxalinu politique suñ dox décision yi décision politique loolu loolu tax may wax politique décision politique yoo xam ne day tourné ci li nga xam ne ñun suñ ko defalee suñu bopp euh, dootuñu mën nañ bañ a faale biti réew ndax ñoo koy bayal suñu ay usine fi yoo xam ni danañ ko mën a transformer muy or bi muy jamaa bi muy fer bi muy ciment muy soble muy pomme de terre muy ceeb muy leneen. Mhm. kon foofu daan laa gis ne jàng njàng mi daal leer na. Mhm. suñ amoon jom wala fulla ci loolu lañu war a mën a jël nag léegi alali réew yi di ko def. et justement lan mooy importance tey Afrique amal boppam banque centrale. en tout cas ba ñun de su ma jëlee cas CFA bii mhm. ñu suñu banque centrale bi amul lu ñu benn njëriñ waaw ndax banque centrale boo xam ne daanaka looy wax da laaj France loolu autonomisation liñ bëgg mooy ñu changé ko jël franc CFA bi sànni ko fële wut suñu weccetu bopp tudd xaw ma école yi tudd xaw ma neneen lay tudd mais ñu am suñu xaalis bu ñu moomal suñ bopp mhm. xool nana taqale ak dollar taqale ko ak yeen taqale ko ak euro mais taxale boo xam ne duñu gaañ parce que actuellement ni ni nii nii nii benn euro ñu la six cent cinquante francs mais tegul fenn tegul fenn nooteelu tubaab loolu il faut ñu fu lay génn ci wut sunu xaalis boo xam ne nii dana dëgër comme xaalis ñëpp Euh, pour que ñu mën a euh, gérer sunu sunuy financement bopp. sànq wax nga ko muy li nga xam ne mooy avenir àdduna bi euh, tey dafa mel ni Afrique am na ci part bu bu am solo lool ci lii di développement dans le monde ndax tey ñoom ñooñu di africain yi seen avenir jàpp nga ne fañ koy décider maanaam génn seen dëkk di ko décider bitim réew amal na leen njëriñ. wax nga normalement tey réunion bi France di def xëy na seen dooleem rek mm. euh, que ne am na am na fu mu ñu amale njëriñ euh, ci politique déjà euh, mooy dimbale nguur yi politiquement mm-hmm. xëy na aussi am na fu ñu am njëriñ parce lu ñu tanee mais dëgg dëgg dëgg ñu ñoo jël suñu yëf en mai coopération kenn bañu ko mm-hmm. waaw ku France wootee ñu dem toog su Chine wootee ñu dem toog su keneen wootee ñu dem toog xool ko yooyu mais li ji li li nga xam ne ñun dañ ko waroon moom seen bopp muy union africaine bi ñu bokk waxtaan yëpp foofu lañ ko waroon mën a mën mën a tege surtout waxtaanu relance économique bi. Mhm. relance économique bi moom. africain yi mënoon euh, waxal seen bopp defal ko seen bopp ñoo koy def mais mënuñu ko ndax amuñu ko amuñu alal ji nga xam ne relance bi moom leen laaj maa ngi fàttali ne Amérique mi ngi ci deux mille milliards économie am mhm. euh, États-Unis euh, Europe ci boppam soo ko dajale Union européenne ñu ngi ci sept cent cinquante mille milliards pour relance am mhm. fii nag ñun ci Afrique Sénégal cinquante ci mille milliards mais benn milliard rek benn mille milliards rek euh, problème la mhm. ñëpp ay fu ne la ñuy dem di yuuxu pour pour mottali ko amuñu en fait ñun moyen relance boobu alors que xaalis xaalis kon suñu suñu ñàkk doole moo ñu moo ñu nasaxal ba nga xam ne ku ñu woo ñu dem di yaakaar di tàllal ay loxo euh, di layaam layaami sax yab la wala ñu teg la ay décision yoo xam ne dañ koy appliquer sa biir réew nga gaañu gaañu au profit tubaab yi daal d'accord merci beaucoup professeur Meissa Babou jërëjëf Elisabeth kontaan naa trop